anticipation rek bu leen kenn divertir comme ni ma leen koy waxee toujours euh, tey page Ousmane Sonko boo leen fa demee ñu ngi woote levée de fonds maanaam mooy local levée de fonds local boo xam ne ñii nekk ci biir réew mi la gën a concerné sax que ñi nekk ci bitim réew mi Orange Money ne Wave bi yëpp pare na boo leen demee ci page Ousmane Sonko bi dinañ ko jël aussi ñu partagé ko ci page yi yëpp doomu aadama yi yëg ko am na nag ay télé yu invité ay dëmm yoo xam ne dinañu génn fan yëpp dëmm yeeg noo xóor yi xam nga démb ba léegi Macky Sall nelawul nag ñi jël avance yëpp téléphoné na leen man naa leen garantiral ne fi may wax ak yéen am na ay autorité yu kawe yu ma woote ñu ne ma Macky Sall fi mu ne ilee est déstabilisé et il ne veut pas s'arrêter fi mu ne dafa dof maanaam xel ba dem na carrément mi ngi wax lu ne lu ne ma ngi koy wax lu ne ma ngi koy waaj du am ak lu ne ma ngi wax waaye dama ne sénégalais yi focus leen lépp ay dil la rek ay dóor la marto la ñu yor rek di tap tap tap bu leen leen faale ndax ma Macky Sall baaya moomul Sénégal Macky Sall su moomoon yor seen su mënoon yor Sénégal saa bañ dem ni kon élection sax mënu ko du ko tëgg Macky Sall moomut senegal te baayam moomut senegal te Kumba Timbo bokkul ci ñu établir Sénégal donc bu kenn tiit bu kenn ragal bu kenn yox-yoxi bu kenn dellu ginnaaw seen duulkat yi yëpp dinañ leen indi ci télé bi dégg naa waa jooju euh, doomu ndey ak euh, baay bi euh, waa jooju nga xam ne ndeyam ak baayam ñoo bokk benn baay sax tey ñoom it fas yi nañ koo yéene indi ko ci ay télé pour mu continuer leen duulal ndax la mu nekk ci avance dafa bari milliard xaalis ba mu lekk dafa bari dégg naa ndaw soosu aussi ndaw si Ndour ki am far ci candidat yi moom it fas na yéene dalal waa ji parce qu'ils ont mangé xam nga affaire product bi waxoon naa leen ko ak yeneen étape dañu lekk xaalis bu bari ci xaalisu Sénégal donc ils sont dans la merde fi mu toll ni xamatuñu fu ñuy teg seen tànk donc ñoom ñëpp dëmm yi wootante nañu ñu ubbil leen télé yi takkal leen micro yi pour ñu ñëw wax njaaxum waaye dama ne sénégalais yi laay waxal xaaral na ci débat asalaamaaleykum wa rahmatullah ne noom fanaane dëgg la dëgg no ça va ça va yónneewuloo ma numéro ba pare tamit zel paanul de xam xam nga ko numéro faali bi laaj naa la ko démb nga yónnee ma ko ba pare nga yónnee sa xaalis nga bàyyi caaxaan baax caaxaan de dinaa la mere nag parce que naa la mer de waaw non déedéet arrêtel affaire avec ça arrêtel avec ça xam nga man man business man la am very serious man ah donc xam lu ma la bëgg wax man bu ma waxee nit dara dama eh, dama expect buy taw buy neige nga respecté ko man noonu laa mel déedéet ba arrêtel avec ça ayoo vraiment yow tamit man man meluma noonu quoi depuis last week laa wax ak yow lu sérieux ba léegi tego ma ni loolu baaxul quoi loolu baaxul non non non mais dafa am dafa am ci lu ma nekk bu ma paree dafa am fu ma ne non non man vendredi laa la wax nag xam nga man yow doo xam doo xam lépp xam nga nit du xam lépp léegi boo amee ay liggéeykat nag yoo xam ne da nga war a lijjante ñoom nag xam nga loolu tamit. ñoom ñuy ay borom kër xam nga man tamit du ma am na loo xam ne du ma ko waaw non liggéeykat laa wax waxuma yow yow patron nga doo liggéeykat dinaa la woowaat tuuti rek tuuti rek tuuti rek naa la woowaat tuuti rek voilà gars yi maa ngi jéggalu baal leen waax voilà je m'excuse ah woote bi il fallait ma jël ko parce que c'est un peu compliqué ak borom voilà donc comme ni ma leen ko waxee Euh, ñii fi ne ñii fi ne à tout prix à tout prix Macky Sall dafa décider ne <laughs> moom de xam ngeen nag sénégalais yi laay waxal de Macky Sall rek boo xamul ne force am jeex na xam nga à un moment donné nag nit il faut nga xam ne tu n'es plus influent Macky Sall géreetul dara ci Sénégal maanaam jàppatul ci dara xam nga ndeysaan doomu aadama bu dundee dund dund dund dund dem bay sukkaraat ndeysaan ba nga xam ne malikal maut ñëw na yow nga ne wala da nga bëgg a rectifier waat sa àdduna yëpp ne yàlla xam nga loolu yëpp yàlla ndeysaan indil nañ ci ay misaal maanaam at dem ba ay doomu aadama yoo xam ne nee na dañuy dem ba ndeysaan ñam bëgg ñam dee ñu ne yàlla wala léegi est-ce que doo ma bàyyi ma ñëwaat ci àdduna bi comme ça la ma defoon lu bon yëpp ma rectifier waat yàlla na leen déedéet tu as eu beaucoup de chance pour faire cela maanaam dund nga juróom fukki at wala dund nga amaana juróom benn fukki at wala dund nga téeméeri at jox naa la ko nga dund régléwuloo wuloo compte boobu donc compte boobu du booy dee nga koy réglé booy dee da ngay dee donc il faut que Macky Sall sache cela Macky tu es mort et tu es un cadavre politique amul dara loo mën a def ci àdduna bi ba changé loo l'inévitable est là il faut yow kay léegi nga nekk comme ni ma la ko waxee rek nga jéem a nekk un gentleman xam nga lay gentleman ba léegi man man je dis jamais trop tard je dis jamais dans la vie qu'il est trop tard il n'est jamais trop tard de se ressaisir nga dellu ginnaaw nga bàyyi sa caaxaan yi ak sa tappale yi ak seen dil yi yéen depuis kañ yéen a ngi dil te vous tous boo xoolee yéen ñiy dil yëpp soixante ans jëm kaw ngeen am amul ndaw ci yen amul benn gone ci yéen buy ànd ak yéen di dil tous les dealers là c'est soixante plus maanaam c'est des morts politiques c'est des retraités c'est des bandits c'est des personnes qui s'en foutent du Sénégal et l'avenir du Sénégal yéen dealers yi yëpp même âge noppalu leen seen noppalu leen c'est peine perdue li ngay lijjanti yëpp xam nañ ko li ngay def yëpp xam nañ ko ay ñoom may se Sala Ndiaye ak ay ñoom Moussa Fall ñooñu yëpp dee nañu ils sont morts ñu njëriñ ci Sénégal gis ngeen Sénégal dafa wuteeg yeneen réew yi ñun kenn mënuñoo jàpp otage waxoon nañ leen lool ba ngay def sa banditisme ñu ne la ñu ngi lay xaar ngay def sa njuuj njaaj ñu ne la ñu ngi lay xaar ngay def sa tojaange ñu la ñu ngi lay xaar billaahi waroon nga xam ne jour bii dina jot noppalul noppalul te gëm yàlla te jàpp yàlla seen yaataay yombe bi yëpp billaahi wallaahi vingt neuf jours a ci des euh, vingt huit jours a ci des yaataa yombe leen dose leen tëddee leen artistes yi yëpp ak star yi ndax temps yi gis nañ leen ngeen mel ni tulleeg male depuis ci chanteuse yeeg série borom série télé yeeg maanaam disquette yeeg ñëpp a ngi tàmbaambalu ñi a ngi Dubaay ak ñi a ngi ci match football yeeg yéen a ngi leen di yóbbu ci voyage yeeg yéen a ngi leen di maaseeg yéen a ngi dugg ci ay mbir ak yéen a ngi wuruj yéen a ngi waraj def leen lu leen neex defal lu la neex jeex na c'est fini voilà prenez vos derniers coups mbëkk leen def leen lu la neex xale bu jigéen buñ fi nax nag ñu ëmbal ragal naa ne sa doom dina juddu tey xaalisu ngénte sax dana la të loolu moom bu yeboo ngeen bàyyi ko xel voilà borom cakkas-cakkas les coquettes là comme on le dit les petits coquettes là faites attention hein ku fi politicien biiral yaay perte te góor bu stressé lu ne la capable ci jigéen ils sont beaucoup stressés fi mu ne nii lépp dinañ ko def ak yéen waaye moytu leen te xam seen bopp te jëli seen carte te voté daaneel leen c'est tout c'est tout c'est fini avec ces gens-là ils sont en train d'assassiner ils sont en de tuer ils sont en train de massacrer ils sont en train de voler ils sont en train de dénigrer ils sont en train d'insulter ils sont en de manipuler lépp dinañ ci dugg waaye dama ne bu leen neexee temps yi nag gis nañ leen ngeen mel ni tulleeg male ay defaru bëñ defaru ween ak defaru arrière ak yéen a ngi concours lu leen neex def leen waaye dama ragal ne ah seen mbuus yëpp dana lompoñ bu ci yàlla àndee fi mu ne nii c'est fini avec ces gens là ah, te mbir yooyu xam nga day soxla maintenance te ñun nag patriotes yi li doy waar ci suñu affaire ñun moom jigéen naturel lañ ci xam quoi jigéen naturel muuru defaru bëgg sa bopp ñun yooyu la ñu xam donc xam leen seen bopp rek c'est fini avec ces gens là c'est fini c'est fini ñii jeexal nañ tàkk boo bëggee xam ndax ñi jeexal nañ dem leen xool suñu waa ji Italie ak chanteur bi bis bu ne léegi ay saagante ci am ay xastante ay waxante lu ñaaw bis bu ne c'est fini c'est fini c'est fini c'est fini dama ne continuer leen maintenir lu neex du doy gars yi mbir mi dafa neex ñu ne duñu bàyyi ñu ne ñoom moom dee dund mënuñoo bàyyi parce que mbir mi dafa neex amul problème mais mbir mi jeex na nag caaxaan moo jeex ci senegal il faut ngeen xam ne les sénégalais ont pris leur destin en mais loolu mooy jeex Bassirou mooy jomaay jomaay mooy sonko mooy jomaay jomaay mooy sonko gars yi mi ngi nii lii rek la ku ne defaral sa t-shirt jomaay mooy sonko sonko mooy jomaay nga doxantoo ko ci biir dëkk bi ñu def lépp lu ñu man pour ñu maintenir suñu dëkk bi pour ñu defar suñu dëkk bi pour ñu góor góor lu suñu dëkk bi changé avancer waaw fi mu ne nii caaxaan dafa jeex ci dëkk bi y a plus de blague y a plus de farce caaxaan jeex na dëkk bi jeex na takk takk takk takk ay foo ñoo jeex donc maa ngi leen di sant di leen gërëm di leen ne anticiper nag ndaw si nduur lekkati nga avance waaye sa duuli bi yoon du dem fenn bu ko kenn déglu bu ko kenn partage foo leen ko gis jël leen sànni ci xaj c'est des bandits c'est des délinquants woowaat na ko woowaat na doomeeraam xam nga nit dafa am ñaari façon yi dafa am nit yu am jom am fulla am fayda am nit yoo xam ne ñoom seen jom dañ ko won na toog ci mooy waa ji sekk moom ay jomam daf ko won na toog et c'est normal parce que boo juddoo ci pappu euh, euh, euh, violeur yow ngay violeur sa doom di violeur nii rek nga mën a mel nii rek nga mën a mel tu es violeur toi violeur ton fils violeur yow mënuloo nekk lu dul kat bu ko kenn faale fi mu ne nii dañ ko ngembaat pour mu ñëw dénigrer Bassirou Diomaye naan waaw plan moom moo ne woon Diomaye du dem mu ne lu fi yóbbu Sonko du fi bàyyi Diomaye moom moo ko waxoon la yóbbu Sonko nag bàyyi na fi Diomaye te Sonko mooy Diomaye donc ñu ngi koy ngembaat pour mu génnaat di duulakat dajale am leen la ak fayda bu toll ni ngeen baare ko yoon bi gis naa waaja sow sax génn na ndeysaan ci ab télé naan ah vraiment bu ñu nee nit du sàcc nangam ah nit ku dul sàcc ñoom ñëpp dafa am problème bu am ma wax leen ko léegi nii vous allez comprendre quelque chose Macky Sall ne donne plus d'argent Amadou Ba a suspecté ne que journaliste yi mën nañu ko defan lu bari Amadou Ba fi mu ne mi ngi fay ay billets d'avion au lieu de jox journaliste yu bari xaalis ay billets d'avion lay fay di génnee xale yi réew mi démb rek daje nañu ngàpparu barki démb génnee nañu des des centaines de jeunesse démb aussi daje nañu ngàpparu ñun xam nañu lépp on connaît tout ñu ngi dugal jeunes yi ci ay gaal ñu ngi dugal jeunes yi ci ay avion di leen jëndal billet avion ku ñu xool mu mu am carte d'électeur Amadou Ba mi ngi lay jëndal billet avion pour nga génn dëkk bi voilà soyez un peu intelligent ngeen xam ne dama leen di wax dara bëgguma koo wone parce que bëgguma manqué respect nit ñi waaye maa ngi ci benn Euh, supermarché bu ñuy def achat bu tudd Food Fest bu ma leen wonoon ñaata nit ñoo rang ci bunt bi y des centaines de jeunes qui sont venus ici pour jàppal nit ay saak pour ñu mën a am lu ñu lekk tey donc jël bu dee jaral na leen jël ay billet avion ñëw Amérique torox jël leen seen billet avion ngeen ñëw Amérique ngeen lekk suuf Amérique dara amu fi amatu fi je vous dis que ces jeunes ils souffrent ici ils dorment dans la rue ils ont des difficultés donc ku dagg sa billet jóge Sénégal guddi yi ñu toll nga ne yow Nicaragua nga dem yaa ngi ci suicide te Donald Trump il a promis qu'il va venir et il va déporter tous ces gens-là Amadou Ba xam na loolu te mi ngi sacrifier jeune sénégalais yi nee naa leen démb nga paru des centaines de sénégalais ont encore pris la route centaines ci nombre bi ma am sax cinq cent cinq lañ ma wax démb donc Amadou Ba fi mu ne nouveau tactique am bi mooy di jël jeunes yi di leen jëndal billet nee na pour ñu génn réew mi waaye bu jeunes yi génne seen yaay yi vote ak seen ndey ak seen baay ak seen tonton gis nga tu n'as pas compris tu es quatre-vingt-dix pour cent minoritaire au senegal donc quand tu es quatre-vingt-dix pour cent au senegal même move that way move that way so you don't show up pour cent des jeunes Non. 90% des Sénégalais ont tourné le dos à ce pouvoir et à Amadouba et toute personne. Donc, loolu mooy téeméer boo jël djurom ñent fukki won nañ la ginaaw. Donc yow, loo mën a wàññi wàññi ci Sénégal xamal na ñang fa bàyyi djurom ñent fukki won nañ la ginaaw. Ñun sa alal bu lewul bi moo nekk di naaw ci ngelaw li rek. Mais jeunes patriotes sénégalais, bàyyi leen xel ngeen bàyyi tiaxaan Sénégal day waja changé pour le bon. ñii génn réew mi nii yëpp ñoom ñooy doon les grands perdants ñii toog ci biir réew mi yëpp ñoom ñooy ñëw am ndam bàyyi leen loolu xel bàyyi leen loolu xel et faites beaucoup attention il faut faire attention Amadou Ba mi ngi leen di sacrifier mi ngi jël seeni ay carte di leen jëndal billet di leen génnee réew mi c'est pas pour mu dimbali leen daf leen ragal moo tax mu leen di mu leen di rawale faites attention ngeen bàyyi ci li ngeen ne yéen a ngi dem fu ne ci àdduna bi ñu ngi koy yëg faites attention bitim réew du jëmukaay léegi ndax ñi ne bitim réew yëpp ñoom ñooy mujjee ci biir réew mi dama ne faites attention sonko mooy jomaay jomaay mooy sonko dem leen campagne ngeen sensibiliser réew mi bu changer ça change pour le bon pour tous les sénégalais réew mi bu yàqoo ñun ñëpp la yàqul te fi mu ne nii les sénégalais ont pris leur destin en main on dit Amadou Ba mooy Macky Sonko mooy Jomaay loolu la ñu wax incha allahu rabbi Amadou Ba mooy Macky Macky mooy Amadou Ba Sonko mooy Jomaay Jomaay mooy Sonko loolu mooy dëgg donc bépp defarka benn bépp nit bépp dof bu yaakaar ne yow fi mu toll nii yaa ngi déstabiliser sénégalais yi tu n'as compris jël leen dem leen télé yi takk leen ñëw leen duul leen fen leen nee leen temps yi ñoom ñëpp dañu soppeeku ñoom ñëpp soppeeku nañu xam ngeen li xew mooy nangootu ñoo jox xaalis journaliste yi du ñu ay journaliste sax ay mercenaires yi mercenaires yi fi mu ne nii Amadou Ba nangootu leen jox ay koppar koppar yi dafa manqué manqué wul mais daf leen ko bañ a jox donc moo tax ñoom ñëpp ku mer rek ngem bu takk bracelet Ousmane Sonko ci na fi euh, waa ji ndaw sa jàlloo ngeen ko njëkkee gis ah léegi Aliou Sow la ñoom ñëpp fan ñu ngi tourner seen veste parce que li xew mooy gars yi leen bañ a jox xaalis ku laaj xaalis ñu bañ bu ñu leen laajee xaalis nag bu ñu bañee léegi ñu dem soli bracelet Pastef chantage la de piège la la mais c'est de bonne guerre ñun ñun d'accord nañu ñun moom ñëw leen rek wax dëgg ci Ousmane Sonko ndax dëgg moom kenn mënu koo dindi dama ne journaliste journaliste yi ngeen gis temps yii ces mercenaires qui sont en de sortir qui son en train de faire de la manipulation lenn moo tax ñuy génn nangootuñu leen jox xaalis dañuy chantage Amadou Ba ak Kaam la ñuy chantage dañuy chantage de faites attention dañu nekk ci chantage maanaam bu ñu leen joxul xaalis rek ñu takk bracelet sol maillot ne voilà Ousmane Sonko liñ ma wax ci ñoom dafa jub ñii ñoo la gën a xam ne Ousmane Sonko ku jub la xam nga ñii kañ la ñu xamoon ne Ousmane Sonko ku jub mille neuf cent ajak jak ñii ñoo la gën a xam ne Ousmane Sonko est une personne très sérieuse ñoom xam nañu loolu bu yàgg xam nañ ko de mais dañu doon tappale c'est les mercenaires mercenaire mooy ki xam dëgg ba pare di fen di manipuler loolu mooy mercenaire donc tey di ngeen gisaat encore ci may Maimouna Ndour doomeeraam ji ka nga xam ne ndeyam ak baayam ñoo bokk benn baay ñëwati di duul na ñëw rek ñun sonn nu tànk sonn leen duñu sonn bu subaa ñu waxaat la encore exactement sa ndey ak sa baay yee ñu defoon yëpp ñu ngi xaar bu soobee yàlla gars yi maa ngi leen di sant di leen gërëm waa asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakatu